di ko waat ci téere Serigne Souhaïbou Mbacké boobu ñuy woowee Qurratul Ayni boolofal bi te mu nekk ci page 123 ak 124 su ko defee mbokk yi suba la gaaw maanaam samedi di dajee juróom-ñaari fan ci aw kor ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàddaay ga maanaam 1441 hijriye di dajee 30 euh, mai 2020 su ko defee mbokk yi sëriñ bi dafay wax ni juróom-ñaari fan bokk na ci bis yi nga xam ni fàttunu nga xam ni kenn du ko wattandikoo baax naa jëfandikoo lu ci mel ni daloo ci wala tàmbali ci dara mbaa ci fas ab sëy wala ñu yeggale ko ci mbaa ñu xarafa xarafal ci ay gone mbaa ñu wattu ci moom limu juróom-ñaari fan bu dee jëmmi gaaw ji nag li nga xam ne moom lañ ci gën a taamu ndaxte juróom-ñaari fan yi rafet na ci gaaw bi moo di watu waaye nag liñ ci watandiku mooy sangu ci ak fóot ci mbokk yàlla ñu yàlla fayal sëriñ Souhaïbou Mbacké rahmatullah alayhi ngeen baal ñu àq bu suba ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu